du ngeen ay terroriste ngeen rey fi ay nit terroriste passé bu rey nit walla rey nit li ngeen di encaissé ak ak li ngeen yor xam nañ fi ngeen koy jëlee xam ngeen ki ngeen di defanteel yàlla dafa def mu nekk ministre de l'intérieur pendant trois ans trois mois mu nekk premier ministre mu nekk président assemblée nationale fii muus du fi naanee ñeex loolu mooy li am naafijo gooto kaalɗo ɗo naane wii jogo ɓernde juulɗo lam an a mahi jumaaji e jamaaji fuuta an a mahi école fuuta an meeɗa jogo ɓernde nde wona ɓernde ballowo miskineɓe allah so tawi jasre ina woodi konngol bongol hoɗañi to fayi koto immori min mbima kala ko jiɗɗa enen jiɗirɗa eko président makisal yiiɗi kala ko haɓatay say say kala ko haɓatay bandi kala ko haɓatay banditisme inchallahu rabbi so ari ɗo min gotat ɗum à cent pour cent ko ɗum woni ko woodi ko banditisme o yo gas yimɓe mi nani eh, eh, deggana benn paa ci suba tey rfm bi may ñëw assemblée benn paa boo xam paa li ma xam nga mel na président Moustapha Niass ngay woote jàmm ak salaam waaye pa boo xam ne quatre-vingt-dix ans ou quatre-vingt-seize ans nga naan nañ nañu roy ci Mali nañu roy ci Mali est-ce que kooku war nañ ko dénk réew nañu roy ci Mali Mali bi nga xam ne ça fait presque dix ans ay nit ñu ngi fay reyante nga ne Sénégal dafa war a roy ci Mali nañ génn kii fii ku fi génn te tegoo ko ci yoon ñi teg la ci yoon amul sax sàmb ak demb yoon mi yoonu yoonu yoonu eh, réew mi réew yoon la jaasi yi ñoo ñu fi bay bu ma yorutoon jaasi xam ngeen xam ngeen fu ma dégg li di wax fii ma aw ma garde corps aw ma garde corps ma ne yow xam nga fu ma dégg soo ma ñemee fekk ma fa ma ne aw ma garde corps aw ma chauffeur ma jaasi bi moo ma fi bay Toussaint xam nga xam nga yow tàmm nga. jigéen ñi bu ñuy wax nga sabaxal ci man xaw ma jigéen nga xaw ma góor nga boo ñemee bu ma génnee ñëwal soo ñemee bu ma génnee ñëwal soo ñemee ma génnee ñëwal xaw ma góor nga xaw ma jigéen nga bu ma génnee ñëwal xam nga man xaalisu 39 45 lañ ma ngénte bu ma ragalee dañ may rendi man xaw ma góor bi jigéen bi monsieur le président. en tout cas en fii fii dëkku yoon la ma ne man xaw ma ndax góor nga jigéen bi xaw ma góor nga ma jigéen nga parce que jigéen góor du bari wax góor du bari wax yow xam nga ma xam nga ma on était dans l'usitelle on était dans xam nga ma xam nga kan mooy Aliou Dembourou da wax lu la neex yow bu ma génnee doo génn wax rek da ngay lu la neex ma ne wax lu la neex ma ne boo génnee jaasi daal la génneel génneel monsieur le président en tout cas loi bi danañ ministre woto hul woto yaaru càggal nous sommes là pour vous pour le président de la république

naa war nañu waaw maa ngi leen di ñaan léegi ñu continuer liggéey bi discussion nous sommes